soxna jaara ana ko sopp soxna jaara jaaratullaahi maryaama buso jaara maam jaara jaara maam jaara jaara maam jaara maman jaara jaara jaara ma soxna jaara jaara mo busu am jaara ma yaa ko sa doom ma gëm ñëpp sa doom ma gëm ñëpp sa doom ma am jaara kaw nu màggal ko sigil jaaratullaay sa doom a gën walaf sa doom a gën ci walaf moo gën ci jaaratullaay jaaraam waxtu daawul jaw doo janni dooram baat maam jaaratullaay siisoo añaanoo te daawoo ba di doo gëdde far te ginda yaa na yaa jaaratullaay ak mokko ak nooy di wax faf dëgg yaa nu ko wan daawoo werante ko xuloo maam jaaratullaay semmal nga di awaan boobee ci yëpp anam saay nopp gàcceel ngeleen maam jaaratullaay yaa yor teraanga ji fi duniyaa aaxirati siggal nga soo daanu ak bii daanu siggal nga mbàcca ngu soo beeg yépp doomi wolof bawal bawal ak ajoor naa jaaratullaay soxna jaara yaa tax ba doomi wolof yi denc ay million te seeni maam musu koo gis jaaratullaay barakallahu fiina ak sa sët nga am ci mbàkke ak ci mbusoo beeg jaaratulaay samba maryama la wax kenn dootu ko wax hamdan liman jaala doon way wa billaay mooy maami aminatin mi waylo way la tey sët yàgg na niru maamam jaaratullaay soxna jaara sarax nu fanu gudd soxna jaara sarax nu fan wu gudd ak barke yokku nu gëm ci say xona may nu ëpp cër jaaratullaay maam jaara noo ngi dagaan sa noo ngi wayaat ci yow ab cër nag nu tibbal jaaratullaay maam jaara naddil nu seddu tibbal nu jox nu noo ñu nu am nu ngi xaaraan fi yow maam jaaratullaay doom laa tësët laa fi yow fa dib géwël di la way saa góor mooy gir gaay may maay jaaratullaay soxna jaara tibbal ma ndab lu rëy loo xam ne ñépp ci xaj yokkal ma mbooloo mi ak seen bool yi lillaahi na gëm yi yokkute bul yàqooti fii abadin wërsëg yi yokkute bu wàññeeku lillaahi pësee fi yokku nu sax ci jub di jaamu bu wér day sopp alaaji fàllu laay billaahi jigéen ci dunya ratullah ngeen jot suñu vidéo nag foo leen moo leen vidéo boo xam ne dugal nañ ko ngir mën a li nga xam